room uh, watching your TV, um, tuning in Africa TV on the special breakfast show, or whether you are on your way to work or your, whether you are on your way to other activities, watching us live on our social media handles, that is on Facebook and also on YouTube. We are saying a very, very good morning and a special uh, good morning for that matter because um, I am excited and I know you guys are excited too because it's another edition, another brand new one um, for the breakfast show as we always uh, do it. We normally, you know, play our stories or we normally give you the stories that we played or that we did uh, during the week because you know most of you uh, busy during the week on your daily activities in order to bring money home or to bring food to the table, especially the breadwinners of the family, whether you are a man or you are a woman. You know, most people have these busy schedules and they don't even have time, you know, to sit and watch the news or to sit and watch what is happening in their country. That is why the Breakfast Show is here to make sure that you are um, posted on whatever is happening in and outside the Gambia. So we're saying a very, very good morning. Like we normally do, we'll give you the stories, you know, the most specific stories or the most interesting stories that Africa TV published um, during the week. And then from there, we will uh, introduce our topic of discussion and then have our guests to sit here like um, people who know that they have issues in every topic that we normally bring here because that is what IFK TV is all about, you know, bringing people who are afraid with particular issues of national interest to talk to you about the issues and then, you know, for you to have your own say and then understand what is happening in your in, um, in the country and also around you. So good morning wherever you are once again. So me it's another Saturday, huh? a beautiful fun one for that matter, and also the sun is out. It's not, you know, Um, it doesn't look like it, it wants to rain also so na bi génn na good morning. jaajëf MC maa lay fay maa ngi nuyu mbokk yi si daan Eye uh, Africa TV ak uh, fu ñu manti <clears throat> nekk di ñu si rek moo xam si uh, biir réew mi mbaa si biti réew moo xam ñu ngi si tamit ci seen téléphone yi mbaa ci toog ci seen saal yi di ñu si daan seen télé yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. ci weeru julaay ñu na leen a diktilaat beneen programme bu am solo ci seen euh, programme bi wala jataay bi di euh, li nga xam ne mooy breakfast show ni ki niñ koy defee nag ci samedi bu jot rek dañuy faral euh, di rek indi li nga xam ne rek mooy program bi nga xamne mom lañ leen di amal ak ay gan waye tamit eh, duñ yem rek ci lool laata ni ki baaxoo ngeen di di ñu top eh, laata ñu indi gan yi sax da ngay gis ne dañuy faral eh, di leen diktal li nga xamne moy xibaar yi ponk xibaar yi gëna fess ci semaine bi ni ki ni ko sama naataango waxe ci biir li nga xamne moy ñak jot gi ñen ñi di ngir rek luko waral moy kër kër yi ngir am lu ñu indi ci kër gi moy waral ba sax duñ am jot yi di xol li xew ci li nga xamne rek modi seen dëkk yi wala ci àddina si waaye nag Eye Africa TV nànd gi mu nànd loolu moo waral mu tégal leen programme bi eh, di eh, di breakfast show ngir eh, lu leen rek raw wala recc ci li nga xamne moy ci semaine bi ngeen mën dabu dabuwaat ci rek samedi gi ginaaw ñu bari bu samedi jotee dañuy noppalu ginaaw bi ngeen dang dangé dugg fa rawatina ñi nga maangi nyukel sax njukkal ñi nga xamne ñoy suñu yaay yi muy jigeen ni di jambari yi goor ñi nga xamne ñomit ay jambar lañ yewu fajar juk njël dem ngir rek indi dara ci fi nga xamne moy ci kër gi tay nak ñu ngi leen di as wat bu baax di leen dalalaat suñu beneen euh, programme di euh, breakfast show ak ni ki koy defee rek euh, tey nag amalaat nañ leen li nga xam ne mooy gan yu am solo waaye nas nañu tamit ay li nga xam ne rek mooy ponk yu am solo ngir nar ko nocci ci kanam ak yéen ngir ngeen man cee daal di gis ceen bopp ci kanam. Mm-hmm. waaye ah, dafa mel ni diwooguloo de ah, wala nu fa demee nii. ndekki ndekki naa koy. Ah, <laughs> non. ah célibataire de fi mu toll moom. Hmm. tey man ak ñoom ñoo ñoo ndékkeendoo maa may tii mu may ma suukar <laughs> célibataire bu mag bi jooj <laughs> maa ko may tii mu may ma suukar. <laughs> Mbadé mm-hmm. ah, um, daf ma may um, tii ma may ko suukar. Ah, mm. a em tey ah, de. waaw sa palaati ful mburu la ndékkee. waaw ma ndékkee ful mburu. ok mu am tii xanaa sama bos daal am na meew moom bosam amul amul meew. <laughs> so uh, once again, thank okay. you again for joining the Breakfast Show. Um, if you're just tuning in, we're just starting uh, the Breakfast Show on iAfrica TV and we'll go straight to um, the stories that we have for you today. And we'll start with the Jabang Estate residents because during the rainy seasons in the Gambia, floods and bad road networks are two of the dominant challenges faced by citizens in most parts of the country. So in the last rainy season, residents of Jabang Estate in the West Coast reached region rather, where some of the uh, prominent victims of flood would cause colossal damages of uh, properties. Now, residents living in the estate have expressed hope about the ongoing road construction taking place to ease their movement. Let's go with that story and then come back. Last year's heavy flooding has resulted in massive damages, including properties and lives, while others were rendered homeless. In August last year, the flood destroyed over 30 households, rendered many homeless, and caused the closure of a praying mosque in the estate. In order to mitigate a reoccurrence of such, Gambia government is now putting a plan for a waterway for the easy flow of water during the rainy season, especially heavy downpour. Speaking to iAfrica TV, one Usman who walks around the vicinity described ongoing construction work as a welcoming development, saying that the water could have its way through instead of stagnating on the roads. I work here, and last year rains disturbed residents here, but this year they are working on it. They are creating ways for the water to pass through, so when there are heavy rains, the water will not stay stagnant, but rather it will flow away easily. And the good thing uh, is that the work they are doing, ah, especially digging holes for waterway, is not disturbing the residents. Rather, they are doing it in a way that immediately there's rain, then the water will have a way to flow. Mam Ali, also a resident of Jabang Estate, expressed happiness with the current construction work, but however expressed concern about the safety of children with the manhole that are left open on the roads. Eh, Honestly, this is a good start but our main concern right now is the dog holes and our children because the kids normally play in the waters and if it rains you will not be able to see the holes but if at all they put some barricade around these holes then it will not affect the kids because children nowadays run around the waters and the work is just starting the manholes are expected to provide waterways to allow water to flow easily when there is heavy downpour to avoid the occurrence of flooding that could cause serious loss of properties and lives and can even render people homeless. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. The residents are people who are hopeful that you know the road construction will help Palestine ended loo am solo xam nga euh, <clears throat> wàllu yoon dafa dafa dafa am solo ak li nga xam ne mooy euh, dem ak euh, dikk ndax boo xoolee dañuy am jafe-jafe waaye soo xoolee Jabang Estate foofu noonu fi xam ne mooy amoon na jamono muy julaay Euh, ci fanweeri fan yu jàpp fanweeri fan ak benn ci ci ci euh, atum 2022 nemmeeku woon nañ li nga xam ne mooy flash flood mooy waame bu amoon bu amoon doole ba euh, ñu bari loru woon ci ñu bari sax ñàkk woon ci seen dëkkuwaay mm, taxoon na sax ndem si yàlla Alioune Badara Diouf jamono jooju moo nekkoon sax ilimaanu jëwriñ yi génnoon na ci. Euh, dimanche boobu noonu wër fii balaas yu bari ñu gis ne foofu noonu euh, dafa am ñenn fu ñu tabaxee foo xam ne yoonu ndox la nguur gi tamit amoon ay euh, jéego yu mu si jëloon wala sax ay dogal yu mu si jëloon ngir am pour ñu mën faa def yoon ngir bu tawee yoon bi di jaar foofu ngir mën a bañ a kii bi fa Africa TV nag ni muy def mooy lépp lu xew rek dafay dem xool tolluwaay bi ginnaaw Africa TV toppoon na ci ba ñuy jël jéego yooyu mu demaat xoolaat. ngir xool ba xam euh, foofu defee nañ ko am déet waaye bi ñu demee gis ngeen ni ñu waxtaanee ak ñi nga xam ne ñooy résident yi comme ni ko gisee ci télé bi ñoom ñëpp daal dinañ wax ne liggéey bi door na euh, nemmeeku guñ benn jafe-jafe wàllu ndox lu leen xaw a koy ragalloo mooy euh, ngir niñ gasee paxi noonu bàyyi ko noonu amul dara buñ fa amul luñ fa wëralee ngir seen tuut tànk dañuy faral di ñëw ci ndox yi di fa te te waaye li ci mën a am rek mooy nañ nañ ko gaawantul ndax wax nañ dëgg ndox xale moom mumin la xamul lu koy lor xale su xamoon lu koy lor moom jàmm dina am waaye soo gisee nit ñëpp di tiital bu boobaa euh, nguur gi ginnaaw mu ngi tàmbali defar lool lool keroog ki nga xam ne mooy Sana Dahaba euh, ki jiite kuréel gi xeex jiyee ci réew mi maanaam National mm-hmm. Disaster euh, Agency mm-hmm. wax na ci lu am solo waaye li gën a am solo rek mooy ñu gaawantul liggéey bi ba xamee ni du rek ci gas paxi ndox mi am fu jaar waaye fexe it ñàkk ba xale yi ñoom duñ mën a am accès foofu ba ba ba jéyee di ci xewaat ndax booy bu fekkee jéyee ngay fànq ba far jéyee beneen jéyee ñëwaat dafay kii li ni ni ki ni ma ko wax lu am solo la lu am am solo la waaye nañ gën a bàyyi xel euh, fi nga xam ne mooy mooy foofu euh, gën a bàyyi xel tamit pax yi ñu gas noonu bàyyi ko noonu. mu nekk lu am solo and IFAKT will still make a follow up on how far you know the road construction is uh, taking place or how um, flooding and all those things. So uh, we'll still proceed with our stories, notwithstanding we have we already have our guests seated here and then waiting for us to you know start the, our major topic of discussion. We'll be discussing and we'll be inform you, we'll inform you guys later on on the topic of discussion. So it is another rainy season of the Gambia when traffic congestion on some of the roads will put some passengers in a dilemma on a daily basis. Now during rainy season, some of the journeys that would take 30 minutes within the Greater Banjo areas will now take over two hours due to dilapidated road conditions and the congestions as well. So this comes along with more challenges on passengers, including the doubling of transportation fares through separating routes by drivers at their own discretion. Let's go with the story by Khadija Tujala and then come back. It's another time of the year when traffic congestion on some roads is causing a journey that should take 30 minutes to take over three hours. This is negatively affecting students and the working class. Many believe that both government and non-government agencies should work together to find a permanent solution to this ongoing issue. During iAfrica TV's visit at the Sukuta traffic lights to seek public opinion on the effects of traffic congestion on them, People described the situation as a serious challenge for them, particularly the doubling of transport fares. Due to this, most taxi drivers would rather park their cars than waste fuel, resulting in lack of transport or hike in transport fares. Modu Salutop, one of the commuters, has this to say about traffic congestion. He said the difficulties passengers are facing on the highway is too much. The public in general is very concerned about the transportation issues on the highway. Lack of transportation and poor road conditions are causing a lot of stress and pain. It is difficult to find transportation which is leading to road congestion and people being stranded. The public is hoping for an easy access to transportation vehicles to ease their suffering. loolu moom problème la moom askan wi yëpp waaw na ko Sunkaru Bojang, a driver at the Sukuta traffic light, explained the stress the traffic congestion caused him on daily basis. Ah, traffic congestion is causing significant setbacks for commuters and drivers. Taking passengers to Jabang or Mariamukunda requires taking long detours, which is a big problem. The public is hoping for easy access to U-turns to help ease traffic congestion and reduce the suffering of both drivers and commuters. traffic was Traffic congestion has become a recurring nightmare, particularly during morning and afternoon rush hours, significantly prolonging travel times. The situation is further exacerbated by drivers doubling transport fares by separating routes at their own discretion. As a result, finding a lasting solution to this ongoing problem has become a pressing concern that requires collaboration between government and non-government agencies. The improvement of infrastructure and development of feeder roads are crucial in addressing this issue. To this end, it is only through joint efforts that the heavy traffic congestion can be effectively elevated, ensuring smoother and more efficient daily commuters for all. Khadija Tujalo, reporting for Africa News. That story by Kandida Tujali, you know, brings us update on the traffic congestion. We all know how, you know, traffic congestion is affecting a lot of people in the Greater Banjo area uh, because, you know, you know, a journey that was supposed to take 30 minutes or less than that normally takes um, one hour, 30 minutes or even two hours because I think the Gambia is one way. Like in the morning, everybody is heading to the same direction, and also in the evening when you know uh, the working hours are closed, everybody is heading back to the same um, destination. So this you know normally causes traffic congestion, and then you know the doubling of transportation fares by drivers. You know some some drivers you know use this occasion to, to, to double the fares. Like, for example, if you're supposed to go directly to Westville, you will not go direct to Westville. Maybe you stop at Latikunda or you stop at Talinding and then, you know, collecting those you fees understand nga so mu nekk loo xamante ne lu lu jafe la. yoon beeg trafic beeg xam nga driver yi ñoom tam fële. yoon moom réew réew yi gën a développé si si na si ñoo la gën a euh, seen dem dikk moo gën a yomb. dem dikk bu yombul rek dafay wàññi bokk na sa sa jafe dafay impact li nga xam ne mooy koom-koom. maanaam dafay ñëw ba laal euh, économie bi ndax soo xoolee tey jii ñi waroon na teel a xëy duñ teel a xëy. Euh, tey dañuy fexe teel a wàcc ngir mën a teel a yegg seen këri yi gis ne liggéey bi nga war a def doo mën a sax euh, productivité bi nga xam ne mhm. moom lañ gën a soxla ci liggéey du du am soo loolu bu amul dafay ñëw affect koom-koom gi soo moo tax it mën nañu gën di def di gën a defar yoon yoon soo koy defar tamit da nga war a bàyyi xel mhm. mm, euh, oto yi ci jaar waaye tamit comme ni nga ko waxee Gambia bu subaa ñëpp boor bale la ñuy aw mhm. bu wàcc jotee ñëpp awaat beneen boor bi waaye war nañoo am ay yeneen yoon yoo xam ne Euh, dinañ ko mën di di jëfandikoo moo xam yoon yoo xam ne ci suuf ci yeneen yoon yi lay nekk. Mhm. Euh, du nekk rek main high euh, kii highway yi dafay nekk yeneen ci biir dëkk yi nga xam ne dañ ci mën di jaar pour mën a kii loolu. beneen bi tamit mooy nekku trafic euh, bu bu bu xar rek maanaam euh, trafic congestion kese waaye mhm. am na yeneen yoo xam ne maanaam te ji boo xoolee driver ñoom li lay jiñ mooy mhm. bu nawet jutee rek ci lañ koy nemmee kon li mu la bëgg a foofu mooy driver moom lu mu la bëgg a wax mooy xëy na amuñ yoon yu bëri parce que dañ lay wax bu xasee taw mhm. ñoom dañ naan bu xasee euh, taw rek amatuñu jàmm ci trafic bi ndax da ngay gis ne fi ñu daan mën a jaar léeg-léeg bu fekkee trafic jàmm am na maanaam bu trafic jàmm amee da ngay gis ne ku jógee Euh, ku jógee euh, fii nu mu tudd sax Banjul war a ñëw bu demee ba Westfield am na fu mën a jaar yoonu suuf bi. Mhm, bu fekkee Brikama la jëm pour génnee euh, fi nga xam ne mooy abu ko. Mhm. waaye bu xasee wa taw dootu dootuñu wóolu yoonu suuf yi ñu daan mën a jaar. Mhm. kon nag gis ne ñoom ñëpp dañoo ñëw jaar si main highway yi. su boobaa nag mu waral mu gën a yokk léegi li mën a li am foofu mooy bu fekkee sax problème am na. nga gis ñi nga xam ne driver yi dañ bokk si stakeholders yi. exactement euh, communautés yi tamit dañ bokk si stakeholders yi ndax euh, da ngay gis ne dem ak dikk bi budul woon ak bu doon driver yi kese kese kese la euh, ñoom duñ daw driver buy daw bëgg na client. Mhm. client tamit buñ taxawee si mhm. tali bi te amul oto bu daw di kii moo tax kon suñuy fa try solution faaw driver yi toog communautés yi toog. ñi nga xam ne ñoo yore wàllu transport toog. Mhm. Hmm, su ko defee ñu gën waxtaane waxtaanee lu mbir mi xool li nga xam ne moom mooy solution bi ndax waxtaan lu ko lu luy saafa liy njëriñal waxtaan yëpp mooy ginnaaw bu ñu waxtaanee ba noppi ku ne indi li nga xam ne mooy mbébétam ba pare indi li nga xam ne moo moom la foog moo war a doon saafara si buñ jógee foofu ñu am saafara buñ saafara jafe-jafe bokk na ci réew yi gën a sonn ci wàllu trafic muy nawet muy noor waaye nawet nag daf ko gën a daf ciy gën a fës waaw peut être yooyu tamit foog naa police tamit si la bokk parce que léegi-léegi sax da dem gis um, moto di di di yokk a paas nga gis benn police ñëw wàccee moto boobu noonu yóbbu driver because lu mu nekk di def comme jaaru joon aha si trafic mu ngi bilifin moto amut trafic baa ngi xat nga bëgg a si yokk a paas léegi-léegi dañ di mën a gis façon incident yooyu noonu waaw ñoom bokk nañ ci mm-hmm. ñoom it la waxee ñu ne la bi su ma waroon a dem Brikama bu trafic bi jaamul ma war a dem Brikama bu yoon bi baaxee ma war a dem Brikama mën naa ci daw exemple mooy war a jógee Westfield Brikama mën naa ko daw benn waxtu maanaam one hour wala benn wala sax less than one hour comme si ñu ko wax waaye bu fekkee ne trafic bi dafa jaam ma war a jógee Westfield dem Brikama lu ma war a daw one hour ma koy daw two hour wala wala wala two hour thirty minutes euh, gasoil bu may yàq noonu yëpp man tamit dama koy génne sama kii bi léegi lu problème bi kay mooy man pour man jàpp bi di solution comme man li ma mooy driver yi war waruñ gër di yokk passé ci lu si nu mu leen neexee mm. waaye tamit eh, nañ gën a defar yoon yi police yi nañ gën di defar seen liggéey bi maanaam bu buñ di xool fuñ dee parce que tey di boo xoolee eh, xam naa ci kanam dañ ci gën a mm-hmm. yaatal si wàllu liggéey yi nga xam ne ñooy taxaw ci ci tali bi muy trafic eh, Euh, police yi mhm. da ngay gis ne léeg-léeg day fay seen liggéey dafay dafay des bu baax a baax a baax ni ki ñu travail di euh, kaw ñoom it la seen liggéey di desee communauté si ñoom tamit léeg-léeg ñu ñuy def ñoom it naka su dul noonu euh, ku ci nekk da nga am responsabilité léegi li li xew mooy na doon collective responsabilité ku nekk li nga jàpp ne yaa ngi koy def te foog nga xam nga ne yow sa xam nga ne lii waroo koo def nga bàyyi ko parce que ni ñuy wax rek mooy balaa nga naan kii defut lii yow ndax yow def nga yow li nga war a def waaw nekk lu lu am solo but ñu uh, ngi desee rek benn story bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a uh, demal suñ jógee foofu noonu dañu indi li nga xamante ne mooy suñ ba tamit introduce um, suñ geste waaye gan bi balaa ñoo dugg si blast story bi bëgg na nga nga wax ñu tey suñ topic of discussion bi nga xam ne suñ story bi rek fekk suñ gan yi ñu continue mhm. waaw suñ uh, tey am si ni ki ni nga ko waxee ni ko ni ko <coughs> defee rek mhm. bopp yi bu fekkee yaa ngi soog a dem di Africa TV yaa ngi breakfast ñu ngi war a euh, waxtaanee lu am solo mooy li nga xam ne nag mooy jafe-jafe yi ñuy jànkuwante loolu di ko nemmeeku euh, ci yoon yi ci dem beeg dikk bi muy trafic euh, ñi lu jëm ci trafic jam lu jëm ci driver yi yi lu jëm ci communauté yi ak drivers yi lépp rek lu ko lu ñuy waxtaanee daal mooy jafe dem ak dikk bi moom mooy suñu topic tey mooy trafic issues loolu la ñuy waxtaanee tey ak ci li nga xam ne nag mooy driver rôle yi yi. jafe-jafe bi nga xam ne comité si maanaam ñuy dugg ci oto yi muy client yi dañ koy jàmbat ci kaw driver yi tamit ñoom it ñuy jàmbat ci police yi di ko jàmbat ci yoon yi police yi tamit ñoom it lu ñuy jàmbat eh, ci driver yi ci boppam su ko defee ñu waxtaanee ko eh, am nañ fi ñaari gan yu am mhm. solo yoo xam ne ku ci nekk eh, am nga loo mën wax ci wàll wi ku ci nekk njiit nga ci fi nga xam ne foofu nga jógee kon mhm. tey waxtaan wi dina amati solo comme yéen ñuy si breakfast soo xam naa buñ li nga waxee bu ñu demee si suñu last topic ba ñëw ñu daal di introduce suñu suñu gan gi euh, doog a mën a euh, tàmbali waxtaan bi. exactly so yeah we are talking about the traffic issues today you know um, the police the commuters and then the drivers you know because they are stakeholders in this. And then um, from, from this story, we'll go straight to our topic of discussion. And the last story will be the anti-crime unit of the Gambia Police Force last Friday conducted a special patrol operation against crime and criminal activities in the Gambia. Headed by the unit commissioner, the team raided places it described as hotspots for criminal gangs and areas where crimes are often committed. Now, the patrol team reached to some parts of the Waskas region, the Kanifan municipality and the Bandel City Council. So let's go with that story and then come back. These are all cannabis that were apprehended here at the Tande Beach, uh, down to the beach. And, uh, you know, these are all issues that the anti-crime unit is going out for to make sure that crimes are coped in this country. Yeah, I got it. The anti-crime unit conducted the operation to apprehend perpetrators, invade criminal hideouts and make sure that people go by their normal activities without being obstructed by any individual or crime. The Gambia has seen a surge in crimes and criminal activities across the country, ranging from breaking, armed robbery, drug abuse, and the possession of harmful materials, among others. The famous anti-crime unit is on the rolling dice as it conducts a massive patrol operation on Friday within the localities of the Wasus region, Kanifing and Banjul. The patrol team's main objective of the operation is to make sure that people and properties are safe and to apprehend perpetrators of crimes. Before departure, the patrol team had a briefing with the commissioner at the headquarters in Banjulinding. The team was briefed on the do's and the don'ts of the operation. Headed by Commissioner So, the patrol team headed towards the Waskus region through Latria, where the team apprehended a Benz car carrying some goods that were said to be stolen by individuals who ran away. The deputy PRO of the Gambia Police Force, Mohamed will give a short brief on the issues of these goods. Involved in the stealing of these goods, you can see there are four big ones and two small ones. Um, the community helps um, in identifying and also recognizing that these people are on the verge of stealing. And once the community tried to chase them out, they ran away. And that was the exact time that our men came. And they're able to control the occasion. So the base right now, the bench right now is in control. Uh, it will be impounded. Uh, the goats, already we have identified two, or three people who claim ownership of the goats. The team later proceeded to other places like Tangye, where some individuals were caught with suspected cannabis sativa, locally called Thai or Yamba. We are now in Tangye after we moved from uh, Salaji. And here our boys had to go down around the beach uh, to find out because uh, the hotspots where these people will usually have their uh, station in the hot pursuit, um, uh, we are able to apprehend two suspects you know, um, and of course, uh, two of them who have escaped the scene uh, through their bags. And inside the bag, you can visibly see some suspected cannabis. Um, uh, we will ensure that these people are processed and handed over to, to the Drug Law Enforcement Agency, uh, that we will pick the case from there. Uh, of course, when we speak to the people of the community here, uh, part of the incident that they report is that some of these boys who hardly go and do anything for themselves would engaged in smoking and taking uh, some of the drugs that get them uh, drunk, and as a result, eh, they will be involved in uh, pickpocketing, uh, breakings, uh, and stabbing incidents. Well, why place we tamit dañ the team did not only conduct search and arrest operations, but it was also doing community policing by engaging communities on the reasons for their operations and how they can work with the police to solve crimes in their respective residents. Many people appreciated the outing of the police to look for measures to reduce crimes. It could be seen as obvious as many were eager to vent their frustration on criminal activities. Among these places is the turntable in Bruceby where businesses including garages of different destinations are located. One of the Save the Garage stresses some of the major issues they are faced with ranging from stealing, snuffing of certain drugs, robbery and others. We are tired of these individuals. They do whatever pleases them, which shouldn't happen. This includes various issues ranging from stealing, smoking cannabis, any bad thing that could that one could think of is happening in this garage. If this country is eh, not taken care of, or if the country is not put in order, then there is a huge problem. Crimes happens here every single day, and from there they will go to steal in areas like Brufut, Wulinkamba, Sarepati, everywhere. And right now, all our cattle have gone, even cement. They steal and get away. The close to 10 hours of rigorous patrol in different places within the West region, the Kanfin municipality and Banjul city yield dividend as many individuals found wanting on different crimes ranging from drugs and possession of armed materials were apprehended. Most of these individuals, according to the police, will be prosecuted and the law will take its due course against them. Ending the first half of the patrol in Banjul, the Commissioner of the Anti-Crime Unit, Momodu Sow, gave an overview of the patrol and the reasons for the operation. We started our operations in the evening since around 5 o'clock we are on patrol. 5 o'clock we are in the West Coast region, Carnifing and right now in Banjul. Uh, we have uh, patrol most of the criminal densities that we have within the KM West Coast and Banjul. Uh, if you look at the patrols, they pay dividends because during the patrols, some few people were arrested. And once we arrest them, we will take them back to the office and then we will do a general screening on them. And then anybody who is found wanting, he will be put before the court. Commissioner So urged the public to be collaborative in making sure that crimes and the criminal activities are minimized in the country. Generally, the advice I will have for the general public is uh, we cannot be everywhere at all the time. Uh, the Gambia, I know, is not, a, is not easy police to be everywhere. I know we have police stations, we have places, uh, but the patrols will, we intensify this weekends patrol because most of the time the weekends are the time that people do go out and go and enjoy. Despite the beefing up of the unit with materials from the Gambia government to the Gambia police force, the anti-crime boss said more is needed to make sure that the country is free from crimes or at least crimes and criminal activities will be minimized to a small percentage we are, uh, uh, or we are still with the anti-crime unit under the Gambia Police Force with their special operation in order to mitigate crimes and uh, crime rates in the Gambia. So we have raided so many places. We have visited like hideouts whereby um, criminals or criminal activities usually happened, like the places like the black market in Sarakunda. We have also visited Latrikunda. We have also visited um, Latria, the turntable. We have visited so many places whereby you know there, there, there, there is a hint or there is a say that it is a, it, these are some of the hotspots that criminals, some of the hot activities normally occur. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. That was um, the report on the anti-crime unit's uh, special operation last Friday, whereby they visited different places from the West Coast region, some part of the some part of the West Coast region, the Kanifan municipality, and ended the patrol during the night in Banjul. And many people, as you've seen in the report, were apprehended on different crimes, others with drugs, others with you know going out and the, uh, in the night with materials you know that are harmful. So this was the operation of the anti-crime unit called the special operation. Get me? wàllum kaaraange euh, moom euh, ñàkkum kaaraange askan wi des koy yàgg di di di di jooy euh, tamit kaaraange gi tamit ndax it boo xoolee lu ci bari da ngay gis ne ñoom takk deri si boppam rawatina ñi nga xam ne ñoo di police yi dañ daan wax ne léeg-léeg dañuy ñàkk waruwaay askan wi si boppam sax doon leen campagnal wala doon leen xeexal ne euh, nguur gi dafa war a daf leen war a jox li nga xam ne mooy ay jumtukaay wala ay waruwaay ngir ñuy mën a di xeex li nga xam ne mooy euh, ñàkkum kaaraange ci réew mi ndax boo xoolee jëfu euh, Samba Boy yi amoon na jamono gis nga li mu daan def ci réew mi da ngay gis wàllum crime rate bi nu mu yéegee woon ak noonu yëpp kon bu buñ gisee ñi nga xam ne ñooy bokk ci ñiy xeex ñaawteef muy anti crime unit ci réew mi ñu génn ci euh, ajuma jële weesu doon def li nga xam ne mooy wër ngir mën a xool samba boy yi euh, man leen a teg loxo ngir xeex ngir rek sàmm ndax police euh, yitteem ju njëkk wala li nga xam ne mooy wareefam bu njëkk bokk na ci fexe sàmm muy aar ki nga xam ne mooy doomu réew mi waaye du yem ci aar ko rek waaye araale li nga xam ne mooy moomeelam maanaam alalam ak yooyu noonu kon tey jii ñoom <clears throat> suñuy suñuy def loolu noonu du ñu def lu euh, jaajëfal leen ndax tamit bu fekkee ne bu ñu defut lu ñu war a def ñu toog ne defuñu ko kon suñu jëlee jéego def euh, dañ leen ci gërëm bu baax xanaa lenn kay mooy ñi nga xam ne teg nañ leen loxo mhm. euh, jarul ñu leen di téye lu yàgg nañ nañ def li li yoon santaane mhm. euh, ci mbir mi bu fekkee yoon dafa santaane boo la ko jàppee nit ki da ko war a am foo ko war a jaarale jaarale ko fa rek li ci war yëpp ñu daal di ko def ndax tamit boo xoolee ñi jàpp ñëpp ñoom ñëpp ñii dañ leen jàppee sinébar muy ay xeetu drogue yu ci mel ni ñu ko waxee euh, yamba ak mhm. yooyu noonu ñenn ñu jàppee leen dañ jël alalu jàmbur xam nga tamit alalu jàmbur bi nga jël yow ni nga amee cër ci réew mi ki nga jël alalam noonu mhm. noonu la amee cër ci réew mi kon soo jëlee alalam euh, am na leneen lu la ci war a mën a fekk mhm. ak ñeneen ñi nga xam ne dañ leen fekkee ay ngànnaay te du yoon euh, ngànnaay boo koy téye ci réew mi defe naa war nga am kayit bu wan ne kii dafa war a mën a am ngànnaay defe naa nekkul kum neex rek moo war a téye loolu ñi nga xam ne seen màcc na ci wàllu yoon xëy na ñoom ñoo ci ñoo ciy gën a yaatal mhm. waaye li ma bëgg a wax rek mooy suñu la jàppee ak ngànnaay euh, dafa am lu yoon santaane ngir ñu def la ko kon guddi nii sax rawatina waaw ci jamono yooyu xam nga dafa xaw a raglu ak jamono ji nga xam ne réew mi dafa nekk ci jafe-jafe ci wàllu kaaraange ndax ñu wax ko ñu bañ ko wax mooy euh, dégg nañ nemmeeku nañ lu bare bare diw nangam te yaa ngi gis euh, ki nga xam ne moo yor seen kàddu gi wala ku topp ci ki yor seen kàddu gi muy Mouhamed euh, Dabo am na fu mhm. muy waxee ne ñenn ñi jàpp nañ leen ci lu ko waral am na ñoo xam ne mbiru li nga xam ne mooy jamante mhm. parce que boo xoolee bakaw fii nii bu yàggul dégg nga fi euh, kenn koo xam ne nii ci ab xuloo rek mhm. moom mu dugg ci xuloo bi ba mujj jël si siso euh, jam euh, benn waaye ba mu kóog moom ñàkk bakkanam mhm. moom xam nga yooyu noonu yu mel noonu police nag mënul nekk fu ne wax na wax na dëgg police mënuñoo nekk fu ne waaye bokk na ci ma réew mu baax maanaam a good citizen bokk na ci yow boo gisee loo xam ne lii mën naa lor sa sa sa sa réew police am nañ fi am ngeen foo mën a jaar pour ñu mën a dégg nga woote ne leen am na lu fi kat soo leen gaawut ñëw mën naa jur musiba ma réew mu baax noonu lay doxalee waaw su ko defee tamit police ñoom di gaaw di man a bàyyi xam nga benn affaire bala foofu lay daane dama mos a toog ak benn waay mu toog rek jël number fire service yi di ci kool nu ko neexee te amul benn soxla maanaam toog rek di leen di leen waye di loo maanaam mu neex ko rek mu jël naan ma koolee tey boo boo koolee koog ñooñu kool leen kool leen fekk caaxaan nga nekk def mhm. ëllëg keneen mën naa nekk ci musiba soxla ñooñ kool leen dafay jàppewaat ne mhm. xëy na kii ci caaxaan la nekk moo tax yeneen nomba yi muy nomba police mhm. muy nomba fire service yi wala nomba boo xam ne bii dañ koy émergency la bu ñu koy wootee ci ay caaxaan ndax wóorul ëllëg mën ngaa def loolu keneen soxla ko mu kool na ah ñii de dañuy caaxaan yooyu tamit nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ak yeneen yoo xam naa loolu moom si biir Euh, topic bi boobu dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëw waaye lu ci mënti am rek mooy rafetlu nañ ko waaye nag bu mu yem fii bu ñu yem ndax na moom crime moom euh, lu ñu war di di xeex la euh, chaque jour buñ sañoon te maa ngi dégg ki nga xam ne mooy monsieur Sow mu ngi wax ne mm-hmm. mënuñoo dakkal crime ba mu jeex maanaam zéro crime moom waaw waaye nañ jéem rek mm-hmm. waaw nañ jéem rek te sabab sabab am yëg-yëg am yaqin ne bis dina ñëw Gambia ñu am fii crime ci ci réew mi man ah nañ am yëqiin bi rek Mariama mhm. waaw mu nekk lu am ah. solo parce que euh, seen opération bi ñu bari dañ ko apprécier parce que mhm. soo gisee euh, ñu apprécier ko euh, Gambie toll woon na foo xamante ni crème dafa bari torop da ngaa génn dem di doxi sa soxla ñu attaque la mhm. jël sa bagage wala ñu ñëw daaji sa néeg wala daaji sa moto wala def lu nekk daal naka su dul noonu daal jël seen bagage soo mu nekk nag lii moo gën a tax sax ñi nga xamante ne ñooy anti crime def special operation pour make sure ne dal crimes yi ni su jeexut sax naam waye at least mu ko mu nekk lo hmm. xamanteni lu am solo la wa léegi euh, ñu ñëw dugal rek suñu topic of discussion bi parce que euh, already gis ngeen ne suñu guest yi euh, tok nañ gar mi ñu bayra rek ko nga commencer si introduce suñ yi dañ ñu dugal si bir programme wa bokki ci si Africa ni ki ni ñu leen ko waxee won ci samedi bu jot dañuy am ay gan yu am solo waxtaan ak ñoom waye jël ben li nga xam moy Euh, topic ngir waxtaanee ko tey nag topic bi ñu waxtaanee mooy jafe-jafe yu ñu jànkuwanteel euh, ci euh, yoon wi muy traffic issues am nañ fi nag ñaari gan yu am solo kenn ki nag di ki nga xam ne mooy Omar Cissé moom bi nga xam ne mooy njiital mbootaayu yàlla gi maanaam mbootaay gi ëmb yàlla gi muy président of the Gambia Transport Union ñu am fi nag ki nga xam ne itamit mooy Lamine King Koli moom itam nag moo nekk njiital ñi nga xam ne ñooy police yi nga xam ne ñoom ñooy euh, taxaw ci yoon yi ngir euh, indi neen gan yu ñu mat indi ndax ku wax euh, Lamine King Koli ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku mu koy def ci ci biir mi bu yàggul dara sukuta mm-hmm. at jaabang trafic light gis ngeen foofu noonu ab vidéo bi nekkoon di sàkkuleet ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofu Omar Cissé tamit ay la yëwale yëween ku ko dégg it xam ne jéego yi nga xam ne mu ngi koy dox Euh, ci kuréel gi nga xam ne moom moo ko ëmb muy Gambia Transport Union kon tey jile euh, suñu leen indee fii war a waxtaanee traffic issue bëgg nañ bu ñu fi jógee incha allah euh, jafe-jafe yu ñuy am mu soppeeku doon li nga xam ne mooy saafara Mariama waaw su ko defee rek dañuy njëkkee si si si Omar Omar Cissé mhm. Miss Omar ndax gisoon nañ fan yële si ginnaaw rek bu talaata wala àllarba yéen a ngi doon am séq waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy police yi ci lu jëm ci Euh, euh, seen diggante ak li nga xam ne mooy euh, wàllum trafic beeg yeneen yu ko wundu dañ bëggoon rek nga dikkalaat ñu ci ci loolu laata rek ñuy dem ci ki nga xam ne mooy ki a Lamine Kinkoli mhm, commission auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gam ne nuyu naa la di la féete sa baat bi gis naa ko si social media bi di lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér. yàlla la fa yaa agut. nuyu naa suma sista bi. Euh, suma yaay. suma turandoo suma yaay. Ah? waaw <laughs> di ko gërëm di nuyu staff am na ñu def Eye Africa TV. ak seen e suma oncle la boobu mooy ma jabar. <laughs> di euh, Kinkoli. suma kilifa la. Euh, before job bi. ndax ñoo bokk na ñoo xam ne ñoo ñu dem na school mun na mm. dawal moto mm. ah, suñ kaar yooyu play na fi lu bari loo xamante ni ah, balaa job bi mm. kon di ko gërëm di ko sant di nuyu suma mbokk yi mooy suma boos yi ñu ma jël liggéey mooy driver yi ak borom moto yi di leen sant di leen gërëm ñoo na pour waxtaan comme ni nga waxee mbiri trafic bi ñu ngi ñaan yàlla duñ ci waxtaan yàlla def si jama, kon ni nga ko waxee on Monday amoon nañ discussion with the mobile traffic unit jiital Lamin Kinkoli li ko sabab lu mooy ah, yomb nañu am meeting with the police command and other stakeholders bon soo seetee end of the day ñun ñooy opérateur si suuf. Mhm. ndax driver ay policiers ñoo ne si kaw tali bi kon mun nañoo wax ñoom ñooy experts so ah, moo tax ñu toog ñu gis ne am na solo pour ñu toog ñu nen because understand xam na suñ problème si suuf kon suñ toogee ñun nekk mun nañu utalee naka la ñu collaborer yi pour ñu dàqalu coono yooyu. so for that being the case moo tax ñu bind IGP office pour mu joño that opportunity pour ñu discuss with the mobile traffic unit IGP grant ñu ko boo ñëw suñu commissioner bi Amin Kinkoli. moo tax mu organise ko invite all the regional across the country ñun tam ñu invite all these regional chairmans our sub-regions ñu toog ñu waxtaan si mbiri kaarange yoon bi su ma nee kaarange am teg bale traffic aspect ah, because ñun ñëpp xam nañ ne réew mi accident yi bëri nañ ñu accident def lay indi gàllankoor yu bari si biir réew mi kon accident yooyu naka lañ ko war a mën a fànki naka la mën a waxtaan ñun nekk ñu seen accident ba naka lañ ko mën a fànki ku nekk sa région yaa xam lan mooy fa problème bi ko problème Serekunda ak problème brigade bokkuñ problème brigade problème Basse bokkuñ bal su su aussi eh, Basse ñëw président Basse ñëw ñoo xam ne la mooy seen challenges so mën nañu am dal rapport am dal coordination ñu discuss ko so la suñu demee ñu waxtaan ñu ne coono yooyu naka la ko a dàqalu am na ma tout ñaare waxtaan mooy ah, accident mënut a ñàkk bugg nañ ko fànk bugg nañ ko wàññi ba xam ne mënut a ñàkk bale su amee ba pare lan moo si tegu nan la mën a def pour ñu ci lor ñoo xam ne ne dañ si ñàkk seen bakkan dañ si ñàkk seen alal dañ si ñàkk seen cër naka am ne ba moom at ñu mën a am dempaay pour ñoon tam mën a at least dina mën a wàññi wàññi métit bi ba soo fekkee ne sa nit ku nga yaakaar mu doon dem liggéey mu accès mu tamp ko mu dee du moom moo amee famille bi soo gis na façon yooyu famille dina mu jee coono o nga am sa benn moto boo xam ne ne loolu nga yaakaare pour di ko farab dépense mu la tampon ko ngay góoru góoru pour lu am si dépense mu em ci so loolu lañ doon discuter appelé pour naka la ñoo discuter ñun ñëpp pour ñu jokkal ñu gis ne ne liggéey bi mu mucc ayib assuré wàññeeku ba askan tamit ñu mën a am jàmm so discussion bi moo ñu ko yombal fekkaat muy jógee nation waaye to ñëw toog ak ñun mu déggee full full day forum lu ñun ñëpp jàngi na ci lu bari am na yaakaar ne loolu su continuer rek ngeen mën a indi ji yokk yokk bari si biir transport ok ok ñu gis nañ tamit laata euh, léeg-léeg euh, dañ di amal waxtaan wala yenn euh, waxtaan yoo xam ne yéen stakeholders da ngeen ko dee am waaye ci wàllu li nga xam ne mooy doxal bi muy implementation léeg-léeg parce que bu fekkee tey waxtaanee ngeen. mbiru nu ngeen di def ba mën a fànq l'accident yu bari ci yoon wi nan ngeen di mën a gën a def ba nga gis ne euh, yoon bi dem ak dikki bi gën a mën a ñoŋ ba nga xamee ni euh, bu accident yi tamit wàñ euh, dakkul tamit dina wàññeeku ba nga xamee ni lu ñuy nemmeeku ci accident xëy na ci bis wala ci weer wala ci at dina gën a néew ci yeneen at yu wees waaye léeg-léeg da ngay gis ne waxtaan bu jeexee tamit daanaka duñ ci gis daanaka lu lu bari ci ci ci jeexital lan mooy doon problème bi ndax yéen stakeholders yéen du doxal mbir mi wala tamit euh, li waral ci comme ni ñu koy waxee ni ko tubaab di waxee seen situation buy war boo xam ne xëy na euh, war ngeen koo def te doo ko yemale ci ci ci yéen drivers yi kese parce que defe naa tamit yéen euh, seen client wala ñu ngi seen stake ngeen di gën a siqal no mooy communauté si ndax bu comité si daanaka defe naa ne euh, dawal daanaka du du ko tax am solo noonu lool kon implémentation bi daal léeg-léeg day day xaw a des fan nga foog ne foofu la problème bi nekk ba léeg-léeg su leen waxtaanee wala jël ay jéego ngir doxal ko doxal bi léeg jeexital bi mu war a am du ko am. waaw xam nga soo ne euh, dañ di am stakeholder discussion am na series of stakeholder discussion ba any discussion dafa am stratégie buñ buñ bu roadmap buñ buñ xàll. am na yoo xam ne mënut a nekk léegi-léegi am na you am na short term plan long term plan knowing uh, ah, the farm's different stakeholders, no, any stakeholders, you have responsibilities. Police am na lu leen war man am na am na keneen lu leen war but this one dafa uute ak loolu because soo seetee ñoo ñëpp bii kan mun nañoo wax ne ñun ak police ñoo ne si kaw tali bi they are partners because transport is a cross community ku nekk am na ci wàlla ku nekk si am na cër bal tey su tafaar am accident am police la ñoo njëkk a joxoñ oo ñu joxoñ driver kon ñu wii kan see ñun ñoo kii stakeholder on the subject moo tax ñun ñu toog ñu léegi balaa ñu ne ni ñoo ñun lan la mën a def together ase capable na pour ñu gis ne ñun lu ñu war ñu def ko ñu ne ne suñu defee seen wàlla wasalaam suñu defee wasaba ñun lu ñu war na ko def mooy na a am ah, dawlam bu liggéey bu am solo ñun dem fi nekk pour saaf di community kon suñu suñ toogee police yi xam ne ñun de lii lañ ma foog na lii ak lii mooy seen challenges si kaw tali bi lii ak lii moo tax accident di am lii ak lii la mën a def pour accident mën a wàññeeku ñun tam ñu fan ak policier fan lii mooy seen challenge suñu discussion bi kan have a road map du right now loolu start du already bu ñu jógee on Monday commencé nañ because our regional chairmans and OCs commencé nañ discuss there are areas challenges yu fa nekk naka la mën a collaborer pour ñu gis challenges wàññeeku hmm. am naa am hope so in leadership of King Colley and with my because ñoo ñoo gën a am seen région so da coordination la bëgg mu nekk fa pour mu gis ne lii police la lii chef de garage la wala région ki amal la ni am that you know police à travers du ne juboo dama ko change loolu dama yéen you guys are partners because accident police yi bëgg ko he caused them daf ñu cause most of accident ñun ñoo si involve driver ak families so lu mu la dàkkalu loolu yëpp suñ suñu njëriñ la this one I feel so dina bal yeneen tamit it's very good we are doing ko xaj na because the most eh, discussion a bi about the policies, about guidelines and regulation loolu nag process So we get the policy yoo xam ne nii ah, amagut you know you need to consider no dafa war a jaar période process guidelines The lu ma dee previous years previous time mooy transport Gambie lu ñu coono bu ñu teg mooy ñu ko jiite woon jamono boobu teg pour duñ ko à priorité dañoo gis transport daal moo tax buy dem like muy ñëw rek mu em ci soo fekkee pour loolu stratégie nag moo fears their challenges moo tax ñun as a leader dañu bëgg a ne loolu let's put something in place if suñ fi nekkul suñu njaboot buy ñëw xam ne lii de mu li mooy yoon bu mu war a jaar pour mën a success dara loolu moo laakoon loolu develop nag it's not a one day thing it's not a two day thing it's a process ba am naa yaakaar nag di di yoon bu ñoo dem su am na ñu ñëpp suñ si jàppee tuñ si wul ci sa liggéey bi mucc mucc gis nañ nga nekk si nga taw guddi nga nekk si taw pour make daal moto yi jaar nañ yoon te suñu doon wax tey challenges yi jafe-jafe yi day am yow as a traffic officer police wala as a commissioner ak driver ban moo nekk thank you very much maa ngi leen management of ITV ou I Africa Euh, maa ngi nuyu suma commande bi AGP ak management team am maa ngi nuyu képp koo xam ne Gambien nga rawatu président ak executive am maa ngi nuyu everybody political parties political leaders di nuyu drivers yi suñu partenaire um, otaay bi tey oo jotaay bi tey important na trop te maa ngi baalan eh, askan bi suma olof bi setu comme suma raka ah, hmm. waaye dinaa jéem a hmm. try ok um, hmm. suñ seen ootaay bi tey important na trop lii su fekkee ne lii sax daf dee mun naa am si all regions ngeen call driver si call seen aussi si ñu toog ñu waxtaan dafa nekk comme dañoo xeex affaire yi accident Omar lu mu kan moo dee cause accident su fekkee ne métit na au ñu dee cause mooy fànnaam la mooy booram mooy driver si ak transport te mooy njiite driver si union tey ak transport signodege accident rek driver la té su féké né driver tamit du sen saxo plan planuñ ko amna ñu xamné plan nañ ko because loi bi lu mu tari soo ko defee yow plan nga ko waye so gisee accident fu am rek lan lañu laati even ñun ci police yi suñ first question suñ bi any victim how about the driver am nañ ko amuñ ko mom lañ ko déx particularly su ñëwee head to head what about the drivers are they alive before we think of any other passenger yes they are okay so ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin because am na yeneen yeneen yeneen because su accident happen rek driver bi dee investigation bi dafa futaay lu am njëriñ so looloo tax all the time dañ dee laajte ana driver bi mbaa driver bi escape na su escape bi moom ñu mun a on explainal naka la eh, accident bi okko waaye su fekkee ne accident bi xamul na boo driver si daay police yi lu ñoo investigate suñ investigate tamit lan la ñoo comme about nothing so loolu tax mu ne driver si la dinaa métti because dañoo lose seen life lose seen matériel te ba pare in the context of Gambia ñun accident bi su ne rek life lañ dee consider that is very important that should be number one priority waaye what about the material tamit we are losing millions of millions of dollars. Uh, musoon from the ministry of statistics ñu ne about two billion that is their own research waaye soo calculater loolu tamit duma si agiw waaye pour wax askan bi accident nekku ne only loss of life but also loss of material damages and economical particularly so ñun suñ jotaay bi ak transport union am na important torop because dañoo strategize naka la ñoo mën a wàññeeku accident déggoon naa PRO bi mu ne you cannot eliminate totally zero percent of crime su zero percent of crime happen then there will be no police officer this I attend the course attend naa course in every course One senior police officer from Sierra Leone, he said if there is no crime, then there will be no police. Exactly. So you see, the crime, the crime causes for the police to come into, to kick out of those crimes. Why? That discussions with the drivers union. The first, the new sensitized people. the new corroborate nakala nyo mbooloo ñu fight accident te wallahi alhamdulilah destia at bi jeexut nu ma ko mun a preempt waaye dama dee wax nit ñi ne with the attempts that we are doing mooy suñ mbooloo bi ak transport union ak mobile traffic luñ taxaw pour gis ne dañoo fight accident accident wàññeeku na bu baax for the past three months accident bi wàññeeku na bu baax rawat na saay di moto véhicule lu ñoo seet léegi mooy motorcycles motorcycles in this past month accident bu nga dégga motorcycle and motorcycle motorcycle and moto uh, and bicycles you can imagine a motorcycle riding and a cyclist that is bicycle colliding until one of them will die so loolu lañoo seet ñu gis ne léegi dañoo wecceku suñ doxalaay bi accident fight against mooy léegi kuñ fekka yaa ngi dawal motorbike school amuloo crash helmet yaa ngi enu nit amul crash helmet dañ laa yóbbu court te ñun suñ court is mandatory is at the sports because it's within section 84 1884 84 noonu jox na doole police officer to issue mandatory 85 without going to court 85 without going to court because court proceedings on these accidents it will take time you have a lot of case files at courts if you arrange one case of traffic before they will sit on it it will consume time so national assembly through the recommendation of Gambian people, you just day, we have to come on this sport fine. And that sport fine is paying dividends. Serious one. So, si loolu lañ lu ma la naa wax ma daaneel suma kàddu balaa maa just throw words rek mooy dama bëgga lu Gambia Police Force particularly mobile traffic through the approval of the IDP ñu ak transport union, Umar Dafo called meeting. Why do meeting? It was a workshop. Because we were there from 10 o'clock mm -hmm. to 4 o'clock. They provided us lunch, they provided us breakfast, that's a workshop. And then all over the country, our OCs, our ESOs, their transport union presidents and their secretary general, we all converge at our credit union to strategize how to minimize accident. Mm-hmm. Today, I Africa is doing it by calling us to discuss about these road tra traffic accidents. Let other people do it, even at National Assembly. They can sit and discuss about that. They can call a forum at Karaba Avenue, call people how to strategize accidents in this country, how to avoid it. Okay. We have seen, just let me give you an example. When the pandemic of uh, COVID-19 okay the entire world, the entire government people, all put their hands together to make sure that they fight against this COVID-19. Today I'm sitting with you, no face mask. Today I'm sitting with you without social distancing. But before, even people stop praying in the mosques and churches exactly. just to fight that disease. And then if you look at the road traffic fatality in the country, it results over, do that COVID-19. Many we are neglecting the uh, road fatality. We are taking this is more serious than road fatality. When the road fatality results are higher than those ones that we join and collaborate to fight. So I am calling on general public that this is uh, a thing of its kind for us to come together, even organize a general debate to see how we can kick out of road fatality. Okay. sa biir wax yaa ngi wax ne comme li nga xamante ne mooy moto accident xal naa wàññeeku waaye mostly fi mu nekk nii loolu nekk di record mooy um, uh, motorcycle yi te loi jox na leen ngeen lifin at that spot comme ngeen um, make some fine and all those things so dama bëgg nga gën a taxaw si loolu bu baax nga explain ni ñu understand waaw uh, soo gisee ma wax la ne section 85 gives the police officer there will be offenses that are all under that section 85 mm. um, ne ay Mhm. da am jiiti ay Africa da am CEO da am staff si si mhm. loolu la so Etisalat tamit lool la mel offenses yu nekk under it jox na power to a police officer to issue emergency fine now and that one is under section 26C of the Motor Traffic Act mu ne soo warloo dawal moto bicycle te solloo crash helmet te warloo eb nit nit mhm. te solut crash element ne léegi so contrabene loolu a fine not more than five thousand dollars at not less than two thousand in default three months in prison. on the spot on the spot okay. like mënuñu yooni nit police yi mënuñu yooni nit to prison mm -hmm. with that mandatory fine should suñ issue a mandatory fine fay local on the spot They la bàyyi two weeks that is fourteen days su fekkee ne fayloo ko dañ laa jàppa ñu yóbbul la court kootu court aate suñ either magistrate bi mu yónni la court eh, prison for that three months because failing to pay that mm-hmm. or oh, decision magistrate la mun na la ada ada eh, double fine mu yónni la mu yónni la prison or oh, mun na laa xool luñ def di two thousand five or and send you to prison So mandatory fine la mel. ok gan. ci moom mhm. balaa ma dellu si président. Mhm. Euh, wax na lu lu am lu am solo ndax boo xoolee loolu sax ñun def nañ nemmeeku ndax boo doon xoolee ni nga daan déggee accident. Mhm. Euh, ci yoon wi ci ci ci jamono yële euh, léegi nii da nga gis néewaana nga dégg ñu ne la accident am na ñaari oto ñu wala sax nga dégg serious accident ci kii. Euh, léegi ba tayaat si moto baay ki muy wax noonu rek muy ñiy dawal euh, xëy na ñu wax raada yi gars yi mën ko waaw gën a nànd mhm. euh, am na fu mu waxee léegi da gis léeg-léeg est-ce que tamit loolu xëy na ñi nga xam ne yaa leen jiite mooy xëy na mobile traffic officier yi mhm. da nga gis léeg-léeg nga gis koo xam ne romb na solut helmet kim mu jàll wala xëy na xam na kooku mu ñëw ñu moom dafay ñëw rek jàll keneen koo xam ne bu ñëwee rek kooku mooy doon victime maanaam xëy na xamut euh, officer bi wala xamut mobile traffic officer bi bi taxaw foofu bu ñëwee mën nañ koo jàpp ne ko euh, soluloo helmet te xëy na am na ku ku romb ko xam ne moom solul helmet waaye xëy na xam na ko nuyu wante neen rek jàll na waaye keneen ñëw mu jàll est-ce que loolu tamit yéen yaa ngi ciy bàyyi xel yow mi nga xam ne yaay yaay euh, yaa ngi ciy bàyyi xel gis ne xëy na du du am kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey maanaam dafa ne du nekk selective justice maanaam rule for one dafay nekk rule for all maanaam tey bu kii ñëwee moo xam fu mu jógee solut helmet wala eh, xëtt na sarta bi bu rombee dañ koy teg daan nikki ki keneen bu ñëwee tamit noonu loolu tamit mu ngi am moom ndax dañ ko dee nemmeeku eh, ndax yaa ngi ciy yaa ngi ciy jël ay jéego ngir gis ne loolu eh, di di dakk na. waaw pour tentu la loolu. Hmm. foog naa dinaa quote something. ok gis nga students yi dafa dafa dafa important pour nga def sa research. dinaa la dinala kote dinala refer to mankajang dele gis nga mankajang gisoon naa audio bu mu génne time bu ma taxawoon si loolu noonu sukuta moom tamit génne na ko te si waxam bi lu mu wax dafa important mu ne King nga bugg a koo buggloo ko liggéeyam bi daf ko dee def because moom witness na at police headquarters fu nga xam ne police officer moo ñëw ak uniforme solut helmet ma oo ko di headquarters ma oo ko ko kaay bu mu ñëwee ma ko du yow yaa nekk pour prevent pour protect lives mu ne ma waa te yow yaa nekk di aar loi bi mu ne ma wax ma ne ko léegi yow ngay def offense bi te in plain uniforme foo romba nit ñi dinañ xam ne kii police officer nekkuloo even in mufti yaa ngee def lu nga xam ne loolu la santa pour ñu bàyyi yow yaa ngi ko def xanaa yow yaa ngeen nekk si kaw luwa ndala mu ne ma am sori du ma ko defaat kon loolu woon na leen ñun bàyyuñ kenn nga nekk police nekk army nekk SAS liggéeykaay foo munta nekk soo committan offense dinañ la stop sometimes mun naa ñu ñàkk jox la mandatory fine like any other person waaye mun du suñu wargal la pour ñu stop la advice la woon na ne lii la loi bi wax bu ko def soo ko def soo soo soo soo accepté with politeness you know with polite words mun nañ laa baala because traffic offenses nekkul ne criminal offense la they are miscellaneous offense ñun ñoom bokka yow te yow te mun ngaa nekk emergency ngay dawal moto bàyyi school nga fàtte sa helmet soo fekkee police si kaw yoon bi ñu challenge ana sa helmet nga ne ha suma bos moom ma xool fàtte naa because nit ñi ñu ngee soog a miin helmet nañ waxante dëgg Gambien miinuñ helmet nga ne ma fàtte naa with politeness mën nañ laa baala woon la ñu ne la demal parce que traffic offences most of them are not bad laws that you should harass somebody you should detain somebody you should even park somebody's motor bicycle or motor vehicle daf laa wax pour nga woon mën ngaa woon that is discretional waaye su ma la su soo ma fekkee si yoon bi la mister ana helmet bàyyi naa ko si office ana warloo ko sa aw ma time is that a polite word man tamit loo ma tontu loolu laa la apply luwaat sa kaw spy di fa nga fekk keneen ki ñëw ma woon ko ma baay loolu suma discrétion la gis nañ ne nit ñi dañ leen dee arraign court on the same offense mm-hmm. ñu tëj keneen ñu bàyyi keneen loolu dafa nekk discrétion ak yaru nit ki soo sooyee emotion mooy attitude sa attitude towards the person ya we are all human beings. and Gambia mu neex la neexul la ñun yëpp bokk waaye yeneen yi su lañ challenge particularly security officers loolu lañ dee am difficulties parce amna, am na du ma wax turam brigama la dëkka police la mu ne ko li moom moom lu waaj moom moom police léegi léegi policeman yi sax def leen dee stop di leen laajte def leen dee pas maanaam moom moo nekk ay nekkuma ay ji ay ji lay liggéey su ma nekkee on the ground di def suma liggéey ay ji la because ay ji moom ma santa ay ji lay liggéey kon du ma fiya yow soo nekkee superintendent o nga nekk commissioner nga fekk ma liggéey lu ay ji santa loo ëppa ëppa rang doo doo ay ji te ay ji moom ma santa kon liggéey ay ji laa fa nekk kaddu ay ji moo fa nekk physically ay ji nekku fa waaye kaddu ay ji lay doxal kon ada sport sarang bidoko doko muna emphasize over me nga waxa politely ñu dego nga nasone, you regretted it why so ko regret na la tej wax loi so lila we don't have selective justice when it comes to law ok euh, monsieur Cissé balaa maa si yow ak comme attitude yi driver yi ak police si kaw euh, ndax mos nga am incident boo xamante ne yow la ak sa senior officer ko xamante ne his euh, comme rankam bi moo ëpp sa mu ñëw def traffic flood di traffic issues and then nga nga approach ko and then xam nga jóg fa also <laughs> um, a uh, with another senior officer, director not from the police, by another senior officer. Let me uphold with no, the, the, position and the department. Um, bu mu ñëwee fekk mu ngi mu doon jël double lane mu ne ko usal single lane nga gis ne trafic bi mun a flow waaye soo leen séparé ku nekk use line bu la neex trafic du dem mu wàcce mu ne ko you don't know me senior officer mu ne ko waaw kooku salut ko mu ne ko waaw am naa senior officer waaye ba léegi yéen ñu sant pour ñu def liggéey bi ci mu bañ ñu am foofu noonu problème mata bi ñëw ñu arrest ko yóbbu ko certain particular station ñu inform authorities am after guide deal with him c'est pas di fact sa senior officer waaye gars deal with him as per the law loolu daf la won ne kenn nekkul si kaw loi nga nekka sécurité o nekka civilian nekka dara even the rights suñ béy yi suñ xaj yi they are backed by law kon fu am ne xaj yi ak xar ak béy yi dañ am right and backed by the law sakantuma doomi adam yaa wal di so we don't look at as, I said Today, Gambia, who can senior the IGP, is the Minister of Interior, uh, the advisor of the Security Council, the army head. So, suñu santé liggéey ñu nekk we are there practically as a structure of Linkoli. But by wordings and actions, it's the oh, IGP. Because if we do something wrong, they're not going to show me. Mm -hmm. They will sue the IGP. Then the IGP is there, standing on the road. So if you see a police officer and want to disrespect him, you are not disrespecting that particular Bakari as a PC, but you are disrespecting the Inspector General of Police. Okay. So let people understand ok so um, ma ñëw si um, Cissé uh, comme nu mu wax si jikko driver yi parce que léegi-léegi itam nga dem driver ñu ne la police yi duñ dee xam naka leen dee waxee nit ñoo dem sa nga def issue ñu téye la waaye xam nga duñ na duñ naxantee yow xam nga di xëccowantee yow ba di use sax F word bi xam nga loolu dafa common si security service bi F waaye comme uh, comme ordinary people like me wala drivers ñoom minundoo ñoom fa ne ne F word bi kooku koo ko wax daal xam nga laal nga xoolam ak yooyu noonu ndax da ngeen am tamit issue yooyu comme complaints yooyu noonu si driver pour ñëw di complaints yi fi police waaw jërëjëf euh, suma boos bu ne déggul olof <laughs> ma yaakaar naa si déggee olof moom. <laughs> mbaa de. <laughs> yeah, uh, the now uh, challenges move from drivers sometimes the approach uh, because kon euh, numa ko dee waxe do me ala mat euh, so fege ni ci jobam bi yaa ya di ya di tamit mu respect la ya di jam la ñak respect exactly but both side la but this one you want to ko joko ju respect su fekkee da nga fil ne laa bëgg a doole loolu nag bu ko dafa am mandate dafa am doole si loolu dañ ko santaane moo tax luwaa mu ne ku nekk war nga xam ne mooy sa warga su ma ñëw fi nga bëgg maa jaay lu dul luwaa aw na ko accepté ba during in confinement your your your your your your your your work jokk maximum som naa am na ñoom la approche ce problème xam nga am na ñoom approche am na ñoom la ne dañ dee xokkatal am na pour dañ dee xokkatal dañ ñëw pour mer because su la rawul waaw di la provoque su la provoque soo tasee ku mel ni man mm-hmm. nga provoque ma takk mm. mu ne waaw mu xam nga jur may woog mu ngay jos you know soo def day am ba what most important lu ma dee wax nit ñi mooy di nga attitude jikko eh, mbuba la attitude mbuba ku nekk mën na ko sol ku nekk mën na koo simi ku nekk mën na mën ko si si ku ku baax ñu kii ku xamali la dima oda sari la but the fact is man lu ma gëm mooy attitude lu ko mën a ciñ mooy système bi système rek moom la ciñ attitude like for exemple tey Gambia su ma ndox bi su ma ko naan soo paree damay sànni butéel bi si yoon bi ba su ma dee su ma jëm rek du ko ñemee sànni because environment moom moo dul alaaf lu ma sànni ko eh, eh, naa ne tey su ma su ma defee police ma def ko som rom behavior against the law lu waat dina jël si du ma ko def ba su ma su ma la def nothing come out of it I will do it so man the belief I have attitude sometimes people say attitude attitude attitude booy ñëpp am attitude Okay. but the system mooy control attitude Okay. the environment mooy control attitude su loolu amul nag ku nekk dina noor sa bopp ji nga doomi adama dafa bëgg free of life mm-hmm. doomi adama dafa bëgg freedom dafa bëgg bëggul ku ko xatal moo tax even suñu diine guñ gom mu am sarata luy doxee du la bàyyi sa coomare rek lu la neex nga koy def te yaay muslim moo tax muslim ne la li nga mën a def mun loo def lii soo defee lii mooy punishment suñ eh, eh, eh, moromi christian yi moo la seen bible li nga mën lii mënu loo def moo tax dëkk bi am lu wax nag xam nga ne loo mënut nekk def réew nag lii nga mën a def mënu loo def lii loolu na soo ko saaganee rek jikko nag dina génn ba moo tax man the belief I have is in this country we don't have attitude problem we have a system problem System go faale os us. su soko soko ko compromise rek is gonna affect sa programme bi start by ten o'clock lu mu neexee ne soo tawjee da nga close system système la doo seet ne boo waxtaan bi am solo amul solo you close it but mooy system. mooy mhm. so man I feel the system more lack. More that people are behaving like this So i put a good system in place You respect our systems

gis na ki mu ngi waxu di ñëw mu la jox ci ki ñëw hey everybody is busy because moom moo busy ba su ñëw dem toog fal teg ataaya ma ñëw ba toog teg ataaya because nit il fait sa doom ni nga mel lay lay lay jël so I feel ne the problem we have is system system is ñu waa amee système bi ñoo doxlu système bi kon that's why we are facing Senegal what is not the issue si système boobu léeg-léeg da ngay gis euh, drivers yi ginnaaw seen kilifa euh, lu ñu war a def bu buñ séenee police manaam wàllu mooy xam takk belt wala euh, gis ne lenn ci seen oto yi am na jafe-jafe euh, buñ gisee police rek la ñuy gaawantu ngir mën ko defar waaye bu police bu fekkee ci leer na leen fi ñu dem noonu gisuñ fa police mën nañoo dem duñ duñ takk belt maanaam yaa ngi wax ba tey ci système maanaam système bi war naa tax ba buñ gisut ki ko li wala ku mënti doon taxaw ci tali bi sax ñun système bi ngay wax noonu war naa mën a tax ñu ne ah man lii dama ko a def as a responsible citizen driver ay citizen lañ Euh, fu ñu mën a te liggéey bu noble lañ nekk di def kon ñoom tamit war na nañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo dañuy dañuy euh, respect li nga xam ne mooy mooy mooy li bi santaane euh, comme ni nga ko waxee balaa ñoom ñuy kaas seen seen seen wareef dafa fekk li leen war ñoom def nañ ko ba pare li leen war bokk na ci di dëppoo méngoo yi nga xam ne moom la trafic bi santaane léeg-léeg tamit nga gis nga dugg ci gis loolu man mii am naa si expérience dugg ci oto police di wax ak driver pareegul sax driver bi tontu ko nu mu ko neexee tontu police bi nu mu ko neexee te tamit police boobu noonu tey jii taxaw ba mu fa taxaw yow ni nga yoree sa oto di dem di wut loo weer si police bi dafa taxaw moom pour aar la yow sax aar sa oto parce que li muy taxaw foofu noonu ak naaj bu tàng boobu noonu yëpp est ce que tamit système bi ngay wax dem ba driver yi euh, ñoom it xam ne euh, seen wareef la mooy ñu gis police ak gisuñu police ak euh, li leen war ci ñu war koo def ñu ñu ñu koy def. waaw comme fu ngay waxee laa a ñëwaat rek. Hmm. système is about the only the système started from at home moo tax ma code la diine bi code la constitution bi. we come to regulations tey tey euh, saraka am na yeneen bu amee su ma su ma gisee du ma du du ma xas bi mhm. waaye système moo nekk si kër gi lu ko gofaan because diine moo nekk kër gi lu ko lu gofaan moo tax ma ne nit dafa bukka yaro sago soo fekkee ne sa kër amul système sa doom su géej ko dina saagandee nit ñi whether we like or not ba am na doomi ñeneen ñi lu muntu mel ñu ñu ñu respect loolu système la xam nga système is not only about government it starts from where go the government dama lay wax ñu ne waa nit yi baaxuñ ñene ma ko koo fi gis dëggul si kaw yoon bi kër la jógee donc kër boobu am na ay responsabilité ñoo xam ne ñoo ko amee ñoo ko war a teg si yoon soo fail to do so end of the day dina ko wane si kaw tali driver la ma leen dee wax mooy you know this country dëkk bi suñ toppee loi comme ça na du ma bàyyi ma fenn man soo ma laajee nga ne ma police dina ma ma ko joma police ma xam police wax du ma jooj ba mun naa digest wax bi est-ce que na sense or not est na sense or not nu soo fee suma tàppee ma fal ma ko yaa tooñ loi bi ñun police am na droit A B ko sa kaw som na su ma la police is offended naa ko de foo fii ne lii na am na ñoo xam ne ko am na ñoo na ko rek su ma ko la kii kii mu ne automatically na mu adresse ko loolu mooy ànd bon loolu yëpp lu ko mën a firnde mooy bi tey su moto yi ñu ne nag am seat belt let's come to the seat belt example what is the purpose of seat belt just make sure ne su dara amul amee nga nekk safeguard am right but whether it's a standard or not boo fa ne seat belt la am si biir réew xam nga du pardon ma jël buum bi rek takk ko fi ne mu em ci non doolu du seatbelt. waaw parce que ba pare moto yu bari seen seatbelt ko nii mhm. am togg nañ am togg ba boo fa doon togg nga soxla wala togg ba moo méngoo ak sa requirement or not ba loi bi moo tax US we are advocating pour let's amend the traffic act because we don't go for standard. nañ am buum bi rek takk ko fi ne mu am nga belt. am nga belt ba loolu lan la mun a lan la mun a aar. mun laa dara so moo tax man la di problème bu ñoo fees tey nekkul teel euh, a am de def fi de so dañoo pour change ko du yomb nag but these are the challenges because Gambia they are not going for standard before we can ñàkk moto ba today we don't ñàkkuñ moto am nañ moto kon right na what we supposed to do let's go for standard like for example this fire this is that moom na moto yaa su su safara amee nga fay ko mm-hmm. King was doing very good operation those days but is it a standard nga gis camion truck boo xam ne ne bii la amee bii mën naa fay sama truck yi karat ba doos lakke ba luwaa dafa am ko rek boo fas loo mënta am rek na kon ñun yoona comme any category of vehicle any tama dafa am standard boobu nit so that is lacking so that's why we feel as a union maybe to change law to do something that is beyond us but let's collaborate with mobile traffic mm-hmm. ñun la xam ne mooy suñu major challenge mu si loxo we discuss it. comme li ñoo wax ne driver approach bi we can sit with them. we we will do so. bu leen def ni I do I last year we do a nationwide tour with the police and etc. no during that tour xam nga driver the concept they have and the police loolu change lu bari am na that that that quorum more lead to this. No, even this maybe that's, this didn't go to viral. But we have a serious meeting with the Commission on Traffic. We have serious operations together to make sure that we safeguard the government people. Okay. so loolu together we can do this but the the attitude mooy I feel ne attitude boobu tout la rek suñu amee good system in place nu we ready to implement the system I feel ne things will go right. ok man dama insistaat foofu monsieur monsieur monsieur président parce mhm. que yaa ngi wax waxi euh, ñëw nga ba belt ñëw ba si yii nii léegi ci wàllu woowu noonu fi ngay waxee euh, ñen ñoo responsible parce que tamit xam nga fii faaw tey bu fekkee driver bi yaa ngi am sa oto sa da ngay gis ne seat belt yu bari baaxut mhm. maanaam dañ koy takk fii takk fële nga ñëw xëcc rek ñi nga gis driver yu bari seen oto yi ni melokaani oto yi euh, ñu sàggane oto bi oto bi léeg-léeg sax lim li mu war a euh, def ci laa xëy na lu ñuy wax visite technique maanaam dem joyanti yenn yu muy am si jafe-jafe mooy paan paan ak yooyu noonu waaw pour gën a mu gën a maintenance yooyu noonu pour mu gën a mën a euh, nekk ci comme standard bi ngay nekk di wax nii duy am léeg-léeg nga dugg ci oto boo xam ne seat belt bi nga takk donc takk rek fo di seeko police bu la mën a bu la mën a téye léegi kan moo war a mën a léegi responsable pour est-ce que driver bi tamit du cëram moom mu ne man sama oto seat belt bi dafay baax waxuma police waxuma kenn waaye man dama koy def parce que ay ay nit laay yëpp euh, ñaareel bi tamit man si ma bopp dama bëgg ma am oto boo xam ne eh, dafa nekk intact boo xam ne police ak ñàkk police man sama oto nii laa bëgg muy doxee waaye maanaam bëgguma def nekk si oto boo xam ne dama bëgg rek xëy ñu wax ne war ngeen am lii nii maanaam euh, distinction ma ma ma dafa ma am ko rek wala ma ñëw am eh, seat belt nu mu mënti mel rek baax na waaye na police bi gis na rek léeg-léeg sax doo takk seat belt ba seen pële ñu ne hey eh, takkal seat belt foofu laa bëgg a waxee yow sa union bi ndax xam nga tey yaa ngi wax eh, système bi ndax tey ji yow yaa ji njaboote transport union mu mu mu neex la mu naqari la yow yaay seen kilifa fi mu toll nii loolu la yàlla dogal léegi tamit kilifa dafa am noo xam ne daf ko war a doxee ak njabootam ndax yaa ngi wax sa njaboot na leen waxuma leen ngeen takk seat belt rek wala di takkaloo seen client seat belt rek parce que police ngeen di jub wala di dama bëgg ngeen koy def dama bëgg ngeen nekk ci standard comme ni nga ko waxee ni te yow da nga gëm ne mbir mi yëpp dafa war a ci kër yi tey jii transport union yow yow yaay seen yaay seen kilifa man foofu laa bëgg a waxee léeg-léeg nga gis ay driver yoo xam ne ñoom tamit wax dëgg fa am nañ ak ñu ci ñu ci ñu ci doon ay jàmbaar ñoo da nga yéeg seen oto sax doo yàkkamtee euh, wàcc wax waaye léeg-léeg nga yéeg ci ñoo xam ne dañ xaw a doy waar euh, duñ la wax takkal ba gis police rek ñu ñu doog takkaloo te belte bi yow soo yéegee sax doo ko dee bëgg a takk parce que nu mel la léeg-léeg nga takk ko au lieu mu séef la belte boobu sax mën na laa gaañ parce que dafa mën a nooy foofu foofu nekk di waxee ndax yoolu tamit yaa ngi gën a def jéego gi gën a sensitiser sa gars xamal leen tamit euh, euh, mbir mi nu mu war a demee ginnaaw yaa wax waxi standard Ah, ñun suñ sago suñ jam jaboot nekka si eh, mujj bu ayib hmm. loo xamante ku lañ gis na naagu ku lañ gis contane ku lañ gis contane ci ñom ba secteur bi mom xam nga ya ma gëna xam lu mel ci man noonu la mel ci ñëppa ah, am nañu ba am nañu bon ba comme tay discours suma sant ko la wax dama ne tay driver bo gis dafa bëgg a moto bu moto bu correct moto bu baax moto bu yes ku nek la bëgg a du dëgg hmm. diga fa ne ku ñu dawal feeraay dama bëgg dawal feeraay amuñ choice mo nañu dawal feeraay ba ku nekk dafa bëgg sa yëre bi rafet ba sa ñàkk a am bi moo tax ngay sa yëre bi driver yooyu dawal moto yooyu du seen coobare but the environment moo leen forcé pour ñu dawal moto yi tey let's give example from here we have a eh, transport policy loo xam dafa wan ne véhicule eh, above ten years waru ñëw Gambia suma jum ten years or eight years waru ñëw Gambia waaw waru waru ñëw ñëw Gambia waru loola import pour ñëw si biir réew boo transport policy la ba soo demee léegi So in the motor market from, because most of our vehicles here is not for human transport, it's about the uh, uh, food whatsoever. Lolo new modify ko, mën dafa ay weñ ay togu ñu you ñu for transportation. Nga indi moto bobu, nga jëna ko Europe, o nga for ko Europe indi ko, eh, nga dem jari nga fay tax less than 50,000 whatsoever. Nga fay. take in dem Europe jënd na boss bu yes, ñu ne ñu fay ko ñu fay charge ko 500,000. Suba you suma di ko indi, do ko indi. Because they are including you ko bu nga dem jënd market. because you are doing business lii mooy mooy issue bi tey soo bëggee encourage ñi di indi moto yi es dañ la ñu pour ñu ñoo mën a def business bi ba GRA Act bi ak that transport policy bi dañ contravene each other because transport policy mu ngee jóg encouragement nit di indi moto bu yees ah mm-hmm. kale mu laa farale bu ngeen moto maa because tax bu ci involve du la ko te ñaata nit moo mën a jënd moto bu yees ñoo fekk nga jël value moto boobu nga charge ko custom nga fekk suba nga boole daw dalasi nga mën a jël nga mën a eh, eh, recover from that money from that vehicle you cannot so this is the problem moo tax ma ne la war a méego ne the policies are speaking to each other tey mun naa jox encouragement euh, léegi let's take step from Sénégal Sénégal lu ñu def the government dafa gis ne moto yu màgget dañ bëri mun ko bal government a partner with the you know you know you know indi moto yi jël sa moto bu màgget bi nangul la ko jola moto jola conditions jël sa moto bu magge nangul la ko jola moto bu yes mu ne la nak sa moto bu magge bi li moy value moto bu yes bi li moy value bi dinañ si maynoos res ngay dong ngay fay ngay werse ba bala moto di jee ñu jël moto magge dem sa ko ci géej bu jëni jën yi mën a mu créer another another another another avenue for the e, e, e, economic bon now tay so ma ne man jël moto bu yes ku jël jëlgale bobu neexul sa du sakom but loolu lay feel famé true so koku su taxawee nak du am dépense du am lu muy lekk il faut mu góoto góoto pour mën a am dépense si loolu that need to start with the government government need to create that environment for the the citizens ba tey soo government créé loolu man tey lu may faratu suma dépense nga ne mooy paak ko fan laa koy paak su ma su ma nee doon xanaa mu paak boppam de. comme paak la. Euh, léegi because man xam naa tey su ma leen dépense su ma demoon liggéey tey su ma demoon dépense am naa jabar su ma bokkee fara fara fa ñu am ñaar o ñeent o ñeent ah ah su ma la takko si koñ soo soo fekkee ne ma xam na su ma xëyul suba du ma mën a am dépense su ma moto bi xam naa mu dem moto bi taxaw ma dama ko taxawal bu xam naa su ma ko taxawal constitution bu nekk si gannaaw soo government mu deñ government to invest on transportation investment transportation does it mean to provide a route to provide infrastructure but to code human capacity nit yi naka la mën a def pour mën a dem liggéey tey moto yi trafic yi daw moto yi fere du seen sago bëgguñ ko bal condition moo leen forcé pour ñu dawal mhm. comme tey man du ma du a sol su ma yëree eh, yii bi ko lii la am xoolal kii kos bu ñu sol su ma gamoon sol kos ba ama ko moo tax ma sol lii mi ngoog <laughs> euh, comme sono gis nañ tamit euh, recently fële rek fi nga xam ne mooy Sukuta euh, traffic light mu ngi taw nga gis trafic congestion bi gisoon nañ la foofu sax yaa def liggéey bu am solo amoon na sax benn pexe boo wax ne pour solution am foofu sax faaw ñu jéem a def bridge foofu mu mën a wàññi parce que gis nañ yoon yi Sukuta boobu dañ luñ ko dee jëfandikoo dafa bari trop waaye tamit trafic congestion defe naa du sax Sukuta foofu kese waaye euh, ci ci même yoon yi Westfield bi nii tamit highway euh, problème la euh, sa commissionnaire nan nga fogee ne moom la ñu war a def moo xam ci xëy na ci seen side yéen gis nañ yéen a ngi def liggéey bu am solo waaye lan la ñu war a mën a gën a effort yi ñu gën war a def ba nga gis ne trafic congestion di di di dina dina dina wàññi ko ndax trafic congestion bëri na ci maanaam économiquement réew mi daf ndax ñu ngi wax waxi accident ne bu amee dañ dee am Euh, nekkul loss of lives rek waaye material losses tamit dañ ci am waaye noonu noonu la tamit traffic congestion di indee li nga xam ne mooy euh, losses di économique parce que boo xoolee euh, liggéey bi ni muy demee ak nit ñu war a xëy naajee xëy ba yëpp product bi war a am ci liggéeyukaay xëy na dina de nan nga foog ne moom la ñu war a mën a def mooy ci stakeholders yëpp waaye yéen ci seen side mooy fi ngeen féetee nga xam ne yaa ko jiite nan lañ mën a def ba nga gis ne solution mën naa am ngir wàññi lu jëm ci wàllu trafic jam waaw thank you ba léegi ah, lu ma laa wax rek man amoon naa miti mm-hmm. Umar moom si boppam moom mm-hmm. ah, nga am contracto bi arex mm-hmm. ah, nga am NRA National Road Authority liggéey su ñëwee ñun ñëpp ko moom te ñun ñëpp ko bokk as long as Gambian project la ku si am sa xalaat nga joxe sa observation joxe naa suma observation mais Sukuta traffic light turntable dafa gudda turntable soo ko xoolee mun naa am ak seen fii only te eh, yoon bi turntable Sukuta Jaabang dafa am eight lanes saa bu nekk two la go and come that lane eight lane is circular for example so joge ko bori airport di dem bi ak kuy senegal bi dem bori airport nga bugg a bàyyi ñaari len pour ñu flow defa cost traffic jam because mulu loo predict ku jógee Brikama defa dem direct to senegambia. mu na buka mu dem jaba c'est tout toonee bugg dem jaba defa obstacle ñu senegal senegambia. di same thing from senegambia, doko ko predict ne su senegal bi defa dem airport directly mu na toon mu dem Sukuta so loolu moo dee indi traffic congestion foofu noonu te si yoon bi pare lu ñëw pour happen foofu mooy you will leave sitting corner nga quick within 15 minutes 10 minutes you will be stagnant at Sukra Jaba those coming from airport the same thing because fu mu nekk nii soo gisee trafic bu mu foofu noonu dañ dee stop all lanes ñu allow benn why we doing that because doo mën a predict ne ku jógee e comme lu ma wa doon wax ku jógee Sénégambia dafa dem direct Brikama mun naa ñëw mu dugg a mun naa ñëw keneen ki dem Brikama keneen ki dem Sukuta soo soo bàyyee yoon yi yëpp loolu moo dee ñëw addi addi adda midul trafic bi jàmm soo looloo tax ñu nekk foofu noonu almost ñaari yoon pour strategize study after solution bu ñëwee mooy let's allow one traffic to flow at one time soo dangaa gis ni soo allowdee benn trafic du jógee Brikama moto ñu ngi jógee Sénégal bi dañoo ñëw stand ñu nekk seen gannaaw trafic dafa gudda even su yoon bi pare so loolu tax ma suma observation suma idea ne ak lu moo seet seet nañ fa build a bridge pour mu jën a gaaw waaw am nga ku nekk mun nga wax am na social media bu ma gisee am na ay bari supporters yu bari over million waaye am na ñu xam ne doo leen mun a predict am na ñu xam ne criticize na what is he doing there you don't know what I'm doing there lu lu lu tax mu nekk foofu noonu. su liggéey la te su ma liggéey as commissioner mobile traffic su ma la pour ma nekk si kaw yoon du ma compare suma boppa as opération command even opération sax warut a toog office opération police opération warut a toog office all the time su dara xewee dafa war a travel mu gis ko boppam mu des mu mu mu ak ak officer yu nekk si ground bi ñu seet naka la ñu koo taxaw adawa commissioner mobile traffic ngay toog office suma office am na lu nekk suma toog yi ñoo dinaa baax li uma gis na ko ah ñu ngi si toog yi nooy na de ah suñ toog yi nooy na de. waaw am nga fa drink am nga fa drink. am naa fa drink am naa fa lu ne waaye may dem si kaw yoon bi may ñaan ndox sañu may ma nekkul suma soxo waaye dama liggéey ngir Gàmbi. wax nga ko fii nii bu nga starté nga ne duuti duuti dafa dem viral. Mm. yes loolu message la. te ñaan naa yàlla ya tànn askan bi te ma Gambian people bi message lu ñoo sani dem na viral because ñun dañ dé def suñu liggéey ba ci kanam ñu stop so holé di entire video of that lol lay wax dañoo def swing liggéey somewhere call ñu ne stop leen for what reason receive nangam nangam for the past two years new political era police yi suñ defee suñ we are on council election if you stop like for example and a ruling or an opposition party is going to have a meeting in Brikama you ñu taxaw si yoon eh, eh, forest This top motor, you know, di they are not above the law they should be kept there is no law that is saying that when a vehicle is going for a football match or political party should be overloaded to carry people on, on top of it comment. or mm. should not carry license. Mm. mm. So we are going to do the job. Mm. So when doing that, we say, wow, the political party nanga more nekk di policy stop nañ ko dafa ay so we allowed people we only concentrated on the free flow of traffic for the past two years okay. without taking the requirements under section 78 now that presidential election is over, parliamentary election is over, council election is over, mayoral and care persons elections are all over. What is left now for the Gambians and the police to concentrate is nañ try ñu liggéey you arrest suñ nit you check your documents correct. ok so ok ok one minute let me come. Mm. when I started the operation on the third. that's why this tu sais soo dawul duñ daw came about as a slogan in the Gambia now because people always say when the police start an they will not end it mm. at the end of the day dañoo bàyyi seen loxo te mane ne la ñun duñ bàyyi suñ loxo yéen ana soo leen sonut ñun duñ sona mm-hmm. soo leen dawut duñ daw. ma waxee. <laughs> bu jógee si eh, on the tag Greater Banjul area ñu dem si Derby within eight days two days in not Bank two days in CRR two days in URR two days in RRR we were able to find and regulate people over five hundred and seventy thousand dollars within these eight days including even non-Gambian vehicles. That's a huge sum. Right? Within eight days. 570,000 that we were able to issue on mandatory fine. And they were, they were paid. Those who didn't regularize it and did not pay, we hand over the, the, the, the, the, the, the key and the vehicle to the regional commissioners. And we are stopping. You see our job, how it stops. Because come Monday, and there is this big conference where the Senegalese delegates are coming, exactly. the president is coming, we cannot be blocking traffic when you have people. But immediately after that, we have done a timetable, a template for West Coast alone. And we know all the routes that on these unwanted vehicles are. Umar is there, thank God, let him send a message. As I always say, the police are not hunters. We are not going to maneuver to look for the offense. We are here for Gambian people. To left to us, new advice people, new abide, everything goes around. but do muna advice ne ni, fo nga jar yar yar moy loi bi nga tok way wax bi kesse du muna dox lu ma di wax apart from seat belt yene ni dañ ko dey taka complet exactly so toge si plane instead of mu ñew across your case, they will just cross it against the airplane and you cannot tell that ah, ah, ah, ah, nga ko so da so di mën a téye driver ci wow. waaw requirements those are on the waaye loolu wax na ko te dëgg la ñun testing officers yi ñun police officers ñu nekk si kaw yoon bi ñoo ko war a tere du Umar mm-hmm. Umar tey su dem foofu noonu mu waa driver si ne sa belta bi jeexul mun ko mun na mun na ñàkk a nekk président kon Umar léegi daf ñu dee toppa te moom position bi nit ñi ñoo ko jox ñun ñoo ko mën a aar mbiri moto yuy ñëw loo waxee ne about traffic congestion we cannot do nothing about that we can only help how the traffic can flow yoon yi yaatut te moto yi ñu ngi ñëw every day musoon naa joxe suggestion as I said I observe and I give suggestion to a one of higher senior officer in customs ma ne leen moto bu bees su ñëwee na ko charge high price five hundred thousand some one million some three hundred moto bu xam ne ëllëg ëllëg ëllëg su daawee one month dina dee fii ngeen charge ko twenty five thousand fifty thousand what are you encouraging I believe man su fekkee ne man maay jiiti foofu noonu I will revise through National Assembly su fekkee ne ak la lu xam ne dañ ko revise I will amend it nga charge moto yu xees low price ndax ku nekk mu indi moto bu bees ñu bañ a am paan ah. disabled vehicles ñu am bañ a am nga moto bu màgget bu bu nga dee nga charge ko simple price twenty five thousand fifty thousand moto bu bees moto bu nice ah with papers nga charge ko nga ne ko because it's in good condition nga charge loolu one million five hundred thousand that is my idea okay because bringing those disabled vehicles to our country go to every street in the Gambia muy fees fii ta garas moto yi màgget nga indi moto bi from Europe or sa broda indi la moto bi nga dawal ko one month two month ren mu mu mu mu mu am breakdown. ngay pay yooyu noonu at low price of twenty five thousand or fifty thousand te moto bu bees nga xam ne lii wat na pour dawal fii eight years or seven years without having no problem nga charge loolu mu bari foog na suñ buggee discourage loolu ñu am heavy fine on those moto yu xam ne dañ màgget ñu ngi feesal suñ street bi heavy fine. ñu alaat moto yu ñu duga lii la Sénégal def moto bu ëpp seven years dañ ko dee alaaw that's that's my idea das loolu mooy yombal police yi ñun ñu nekk si kaw la yesterday day before yesterday para président bi travel to where did he even go Liberia Liberia you have about three four vehicles on the highway just what time ñun bu ñu jógee pour jëlee moto yooyu noonu te léegi léegi ñun dañ dee luwaase et towing véhicule pour jëlee moto yooyu noonu su boromam ñëwee mu refund ba te ñun dañ dee fay towing véhicule bi 2000 2005 pour mu jëlee moto yooyu noonu si kaw yoon because at the time du ñu am kan moo ko moom and we cannot leave those motor vehicles there just for easy flow waaye moto yi màgget yi ñu ngi fesati dëgg with keep price to clear them from customs man foog naa ñu am loolu high price dangaa gis ni ku nekk balaa ngaa dem oda moto bu màgget nga oda moto bu tane at least five years six years seven years dina daw so looloo tax di block bëgguma dem into integrity of politics talk no waaye suma area lii moo tax te even suñ jëlee di whole police ñu ne leen taxaw leen si kaw yoon bi du mun a sotti So um, immediately after the, you know, the, the, visiting of the Senegalese president, then the operation will continue in West Coast. Wasco. La ilaha tangal <laughs> operation tangal dekat noko hewo ne ne operation tangal dekat okay okay mungo so Omar uh, dégg nga uh, luy say wax léegi parce que fii drivers ak police ni kau ñu ko uh, ay partners men. ndax suba bu jot yéenay nekk ci ci ci ci yoon bi léegi ngir lu gën a mën a yombal liggéey bi ndax waxtaan nañ fi wax nañ fi yenn si si problème yi wax nañ fi yenn yi nga xam ne driver yi dañ koy jànkuwanteel yu yu ci bëri waaye léegi euh, bëgg nañ tamit ñëw ci nan ngeen def yéen ba mën a gën a ak ñi nga xam ne ñooy euh, police yi ci rek li nga xam ne mooy euh, dem ak dikk bi di gën a mën a rattax ni gi ko euh, commission a waxee euh, ci ñoom li ñu mën a def rek mooy fexe ba dem ak dikk bi di yomb waaye lu war ci wàllu trafic congestion moom mënuñ koo mënuñ koo xeex xanaa lu ñu mën mooy comme ni mu ko waxee joxe na suggestion am ci rek ne lu mu jàpp ne bu ñu ko defee dina gën a mën a yombal li bi ak yéen tamit nan ngeen di def yéen pour ngeen mën a gën a mën a collaborer ba ngeen gis ne euh, mbir mi dina gën a dox ak ci wàllu sensibilisation bi nga xam ne war ngeen ko di ko def tamit di waxtaan ak drivers yi commuters si di leen xamal tamit yenn ci nga xam ne maanaam euh, ci euh, workshop bi ngeen amoon noonu li fa ji li ngeen fa jëlee tasaare ko ngir ku ci nekk man koo xam di saafara li nga xam ne mooy jafe-jafe wala wala wala wàññi ko. jërëjëf comme ni ko waxee noonu la demee discussion dafa centre on two agenda. mooy naka la ñu mën a def bañ mën a wàññi accident ku nekk xëy na ay diam bi si na bu mu jógee ak moo naka la fogee ak océan bi moo tax ma ne la starting bi mooy euh, ku nekk da nga moo la mooy sa problème sa area area nag seen problème uti comme moo fi nekk moo tax fii ri tabo ko wees fii bu nga dégg moo tab na mu nit mu dee dafa jafe bi ko moo tax amu fa fa dawee moo tax ñooy xoosante rek moo nga naa bañ so loolu lan do waxtaan ak naka la ñu mën a speak together te su ki waxee nii man ma waxee na rek soo ñu ngi confis aska njaboot bi because dafa mel ni fire bi man my role is to protect the welfare of my members according to the law su ma feel ne something mu ngi dem loo xam ne doo si feebar dama war a engage authority to and make sure how to improve that is my duty ki mu defe ne nga pour to enforce law loo mel loo xam ne dañ ko tënka sinon sa assemblée ñu jokk pour mu enforce so that's why we have that collaboration Uh, for example right now police are doing operation pour ñu mën a clear the highway ñu ko def moo ta ñu ne su foo leen foog ne suñu trafic ñu ngi ñu ngi oy xatal injeeñ la ñu we go together ñu sauver ñu agri lii moo mën a nekk because lu ñoo bañ mooy kii laal ñu daw si man man ma wax ni kii wax ni am nga léegi soo mii da ñu ngay pik valeur mu ngi gën a yéeg oh ki ngol mu ne nii Omar ne bi gën a jóg loolu njëriñ askan bi we we are keep fighting end of the day and use us ñu ñoo continuer di sonn Mm. We already we fit that strategy. Mota our OSIS, Manaking we are doing together. Tinyo tase, work, job la. After job you are progress. Comme nous avons start. Mm-hmm. So regional chairmans ak OSIS tamit loolu la mën nañu And the most important aspect tamit ah, dafa eh, in term congestion. Congestion mën na ko in, in, you know, different manners. But maanaam moo fa nga coo do a eh, survey in a traffic. The most of the vehicle in the traffic is private vehicles. ñoo gën bari. tey man may dem Banjul every day I consume minimum one thousand dollars of fuel every day dañoo foog ne du ma sabab du suma coobare de ba soo fekkee ne naa transport système boo xam ne nii dinaa jógee suma kër bàyyi six thirty yi dinaa àgg Banjul bàyyi eight o'clock ma fay wax ma la dara si ngoon ma war a ñib si dañoo foog ne yow dinaa suma moto bi do it nga ko def one thousand for fuel I don't have because waaye di environment moom moo ko forcé pour ma def moo tax we convict we a tey soo fekkee jëlee nga eh, moto yi moto yi ñaar ñetti nit moo fa di nekk ñaar ñetti yu gën a bëri so ñoo ñëpp suñ gisee affordable transport system boo xam ne nii they will go to leave their vehicle in their compounds ñu use those public transport buses dem seen joobeekaay bi wàcca duggee si ñu save at least eight hundred or five hundred from their account kon loolu in saving la ah number two léegi génne ten moto si kaw moto or thirty moto si kaw tali loo xam ne si benn moto la nekk let's go to western pour nga leen in western nga gis ni ku dem moto yi liggéey kay is very rare xam da ngay dem si train boss nga jël train bi nga dem job wala dem si boss because Gambia environment moo ko déterminé moo tax ma defal transport emul pour defal yoon but in professional aspect moo jara liggéey moom moo laaj garaaw at most important again so léegi boobu mooy nekk sa ma next point mooy ne mm. soo fekkee ne eh, king eh, accident am na ku lay sorry accident am na moto bi dugal na accident already kii mu ngi def li jëm according lu war nga ko waaye the vehicle has requirements according to the motor traffic act soo génnee moto balaa nga koy dawal si kaw tabi am na lu lu na sant loo xam ne da nga ko war a fulfill before use that vehicle at the road mooy ne véhicule nit war naa fay income tax jaare road tax moom da nga ko dajale si fuel according to fuel levy yow it was driver's license you know roadworthy certificate and insurance so what is the purpose of those insurance okay because insurance didn't belong to state government moomu ko is belong to private individuals group of people ñoo individual ñoo ko moom loolu la moom soo fekkee ne moto bi am na tafaar duggoon def naa accident nit yi lor ci pour ñu mën la leen jon tàmpaay fii nag Gambia loolu des gannaaw loolu moo des gannaaw loolu lan di waxtaan police tamit naka la mën a collaborer gis na ne su accident amee the victim of the accident pour ñu get lu leen war from the insurance company because police I blame them sometimes I blame them mm-hmm. it's their role is to enforce the law. Doing that insurance is part of the requirement. But what is the purpose of insurance? To actually, I'm a victim of compensated. Okay. Gambia alone more lack. Mota always, we are foot finger on the eh, eh, eh, central bank. The commissioner of insurance, we feel the fact that Gambians, okay. deful ligam, deful luko war, ndum waxul ñu won lu tax deful ligam. Because Mo is the regulator of the insurance companies. All the insurance companies, moto to our hospital, demal suñ kër yi demal suñ you know environment bi ñaata ni ñoo involve accident amuñ dara end of the day dañoo struggle pour ñu leen du ñoo dépassé no already am nañ treasury bi bu xaalis bu nekk treasury bi pour those people but commission insurance xam na li government xam nañ ko but they don't do anything about it so this is the concern we have nu fug na du man ma soo wata informe accident let me ma soo wata du ko accident mm-hmm. ki nga ba fay moo xam loolu so moo tax ñu ne la su fekkee gaay mënu fay claim ñu duñ fay insurance. ok ñu paré uh, nañ pour ñu mënut a su mënu fay claim duñ fay insurance. Okay, so this is going to be another topic of ah, discussion. the insurance bi agree yooyu parce que wax na lu am solo. so king ñu bàyyi rek sa sa sa kàddu bu mu jaré because time bi dafa ñu xol ba pare. waaw dëgg la am fu mu daaneel foofu laay ñëw. ignorance of the law is not an excuse. moo nekk the present of the transport mo motam bi important na accident. électronique la very serious accident dafa toog in a very short time ñu compensate ko through insurance over seventy five feel feel naa ne as a leader this is public advice as a leader yoon bu mu jël ba moom mu am compensation bi na woonee loolu to all drivers yi ñu am seen rat pour ñu follow up seen compensation because insurance in the Gambia man suma diggante ak yàlla dama ko dee enforce because loi bi moo wax ne foog ma enforce ko I think section. Eh, eh, eh, requirement it's on the requirement. yes it's on the requirements pour ñu enforce ko te loi bi lu mu wax pour ñu enforce ko dinañ ko def. ok waaye soo ñëwee si law loi bi on the tort of law this is another model of law we call it tort of law law student la. Amna negligence duty of care break of duty ak ñeneen ak consensus so they demee on the thought of law Luma wa most mooy compensations. okay can you have just few seconds because time. yeah that compensations loolu laay wax sama produit. Mm-hmm. pour mu wax ko driver si. pour ñu follow up. do duñ mun a fay insurance bi. te. nekkuñ di leen compenser. ok nit ñi di sa mbokk di dee. although si need to be compensated. exactly xam naa ne lii awareness la insurance duñ ko laaj waaye we have to say it. ok ngoo waaw ji jaajëfal euh, Lamine Kinkoli euh, xam naa ñàkk na jot waaye teewul bàyyi na yitteem yëpp ñëw ngir mën a euh, ñu waxtaane li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi rawatina ci wàllu dem ak dikk di gërëm tamit ki nga xam ne mooy président u Gambia Transport Union monsieur Omar Cissé moom it nikki noonu li nga xam ne mooy xat na lool waaye fexe na ba daal di rek ñëw gërëm tamit bokk yi ñu doon bàyyi xel ci suba ak léegi ci Eye Africa TV ci seen breakfast sant leen bu baax dig leen daje Uh, gaaw ba di ñëw bu ci yàlla andee. Well, um, special thanks to King Koli because we informed him very late and then we just informed him yesterday, but he endeavored to come here. Thank you mm. for coming, Commissioner, and thank you for coming also, the President of the Gambia Transport Union. Thank you guys for watching the Breakfast Show until another Saturday with another in interesting issues, with interesting guests to talk about national issues. Manlawan Mariama Cham, Agadmin, bye bye, and do have a wonderful weekend. <laughs>